Nous assemblée nationale bi assemblée nationale askan wi moy 14 législature ba ñu session extraordinaire gulet ñu procédure d'urgence moonte de jafé inondation fi étudiant yu université numérique Cheikh Amidou ex-université virtuelle du Sénégal am bac il y a un an ba promotion 10 commencé guñu cours vous vous rendez compte 18 000 étudiants am bac Dao, ñu orientons lex ex-UVS ba tey commencé guñu cours 18 000 yo il y a 3000 et quelques étudiants yo xamné ba tey jii nii jotaguñu sen machine ndax té kuñu kuñu orienter université université numérique Cheikh Amadou Kan, état da lay jox ordinateur jox le modem jox le jox le niñ ñu koy waxatee euh, connexion internet. jusqu'au moment où on parle sen rak yi am nañ bac état bi imposé len une année blanche té du suñu dom xeyna ndaxte du seen doom yéen membre du gouvernement yi nekk université numérique Cheikh Hamidou kan woote wuñu session d'urgence woote wuñu procédure xawma plutôt session extraordinaire woote wuñu procédure urgence pour kaawu étudiant yooyu ñuy woote procédure d'urgence ci lii waxuma ne baaxul de jamono ji ñuy wax bu ma jëlee misaalu commune bu mel ni Ida Mouride ñu ngi leen jox 14 kg bop imposable, 14 kg. de C'est comme ça qu'on va développer l'agriculture. Où est une procédure d'urgence pour lui Où est une procédure d'urgence pour son dom Il y a des Nous qui ont 200, 300, 100. Il y a une session extraordinaire nous ne sommes pas une assemblée du peuple nous sommes une assemblée bo xamné président Macky Sall mi nga xamné ne rek président Macky Sall mi nga xamné ne rek moko ko Nous di session d'urgence pour nous, président Macky Sall pour d'accord les complots pour la liquidation du chef de l'opposition politique au Sénégal Ousmane Sonko deug la nak li nga c'était un pseudo dialogue c'était un simulacre de dialogue nous. nak am dem am fa wax ci problème bi du ñom problème bi moy Macky Sall mi nga xamné lim fi nekkee nekkul luddul organiser ay sélection et non ay élection ñun li président Macky Sall na organiser élection pas ay sélection sélection mooy lan may ni de di voter, may ni de di en principe tay président Macky Sall dafa waron ñew def ay excuse publique ndaxte il se rend compte que limu mu Karim Wade du deug du yoon il devait faire une autocritique publique parce il s'est rendu compte que limu mu Khalifa Ababakar Sall du deug du yoon c'est ça la vérité il devait faire des excuses publiques et non duñu duggal ci ay deal di ñu dugal ci ay complot di ñu dugal ci ay liquidation di ñu dugal ci benn plan bo xamné ne ni mu tudd moy président Macky Sall cham ki di ma wax cim président Macky Sall cham donc motax ñu né motax ñu né fi ma bokk moy complot yi dafa wara jeex fi ma bokk moy président Macky Sall do bokk et je félicite le peuple sénégalais d'avoir réalisé le président Macky Sall Bok. et on va imposer son code ngay les Koufogne, Koufogne Koufogne, ku yi, Koufogne, yi yi, ku foog Ousmane Sonko du Bok, yaa ngi nax sa Koubouge ku Ousmane Sonko day Koubouge ku bëggee organiser une élections inclusives Bravo au peuple sénégalais qui a réussi à imposer à Macky Sall, Macky Sall dans Et ce peuple sénégalais va imposer à Macky Sall son code dans les Son corps dans les Son code dans les Mon len Bok. Mon Ben Kofi Wafi, pour nous gagner, on fera face à vous de manière constitutionnelle. Macky Sall dans Son code dans les La parole est à notre collègue Pierre Aliou Bey.